asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi yéen ñi saxoo di suivre seen chaîne YouTube bi di Sen tey nag cas du jour mi indiloon procès agresseur bu professeur Moussa bu l'hôpital de Fann présumé agresseur boobee di wuyoo ci turu Amadou Gueye Ngom tey la taxawal ci kanamu tribunalu bu flagrant délit de Dakar ñu ko doon toppee ci outrage à agent dans l' de ses fonctions moom nag tey ci kanamu attekaay bi dafa wedd lépp lu ko doon toppee nee na dafa bëggoon poser question juste professeur Seydi ba ci mujjantal bi sax da ko doon baal ak wante loolu teewul euh, kii di procureur de la république sàkku na ci président tribunal bi mu tëj ko six mois de prison te tamit ci l'enquête bi kii di professeur Moussa Seydi dafa waxoon du ko baal mukk parce que jour ba mu koy saaga di ko menacé ci ca cimetière de Yoff bi bàmmeelu doom bi nga xam ne génn na àdduna depuis dix-huit ans fi mu ne nii nag euh, procès bi mi ngi wéyandi jeexagul avocat défense bi mooy plaider ñi ngi di xool fan la wàññi li mu jéggi gëtëm.